àddooti ci ay xibaar yu wér yoo xam ne nii mi ngi àddu jëmee ah, ci kii di wuyoo ci turu Fatoumata Ndiaye mi nga xam ne moom moo nekkoon coordonnatrice Fouta Tampi bu fekkee ni tax ay information yu leer jibagul ngir rek ñu xam ndax moom moo jiite kuréel googu ba tey wala jiitee su moom tamit di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ku ne xam na ne jamono ji ñu wax ak yéen mi ngi def li nga xam ne nii moo di la toile bu baax a baax ndax foo tourné rek ci réseau sociaux yi moom ña nga ko fay joobee ginnaaw bi ñu nee rek dafa fekki mouvance présidentielle bi naam sax dafa fekk ne rek weer yi passé yépp moom Fatoumata Ndiaye ay jëfam ak yeneen ci lu rek ñeel euh, Fouta Tampi Fouta Tampi booyoon na suñuy nopp ndax foo tourné da ngay dégg ñuy wax Fouta Tampi ak Fatoumata Ndiaye mu doon nag taxawal boppam di jëmmal boppam ci côté yépp Euh, ci wàllu euh, njàmbat yoo xam ne waa Fuuta dañu koy jàmbat naka noone tamit lépp lu waroo ak doomi Fuuta te ñi nga xam ne nii ñoom ñooy nguur defee suñu ko waral tamit ba ñu ko doon gis sax mu doon ànd ci yenn ak ay activist yu ñuy woowee waa Y'en ndax ku ne gisoon na ko muy affiché ak wa ñoom caat naka noonee ay kilifa ak ñeneen ci waa Y'en ak sax kii di Alioune Sané ngir rek ñu koy jàppale ci ay yenn yoo xam ne ci ay soxteem la moom moomee di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi nag ginnaaw ba nga xamee ni dafa def ab sortie fële nga xam ne moom moo di ca RFM ngir xam ne rek nii Macky Sall daal à 70 pour cent yoo xam ne maanaam téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya daal dina koy faj seenug njàmbat maanaam njàmbat yi daal na ciy faj rek ba mu toll noonee moo tax sax ñoom ñu koy gërëm di ko sant sant ndax dégg na seenu njàmbat lu ni mel daal ba mu ko waxee ñu bëri dañoo xëy moo xam ci presse bi réseaux sociaux yi activistes yi ak ñeneen dañoo xëy rek di ko attaqué ngir xamle ni moom moomee daal dafa seey ba jeex jamono jii euh, ci Fouta Tampi gi nga xam ne ni rek moom moo ko jiite te it mu tudd leen euh, ci sorteem boobu mu def ne rek kontaan nañu ci président Macky Sall ba loolee amee nag ki nga xam ne moom la séqaloon boobule kuréel di wuyoo ci turu Baye Niass moom Baye Niass moomee ak Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ñoom la ñu xamoon ci kanamu kuréel gi ñoom it la ñu daan gis ci sorti yu bari ba loolu amee tamit kii di Baye Niass dafa génn weddi ba mu set kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi daal di xam ne rek ne Fatoumata Ndiaye waxul benn yoon dëgg te it nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Fouta Tampi mësuñoo seey ci fi nga xam ne moom moo di rek ci biir li nga xam ne ni moom moo di ci APR wa waxuma la ak Benno Yaakaar ak kontaan ci président Macky Sall moom Baye Niass sax ba mu génnee di attaqué kii di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi xamle na rek ne ñoom doomi Fouta yooyu nga xam ne ñoom ñoo taxawal Fouta Tampi duñu nangu benn yoon di seey ci président Macky Sall ak waa këram ndaxte président Macky ñoom li mu leen def duñu ko ko baal abadan ci ay dóor yu mu leen dóoroon ci nervi yu mu ni nee na waaye tamit ci yoo xam ne da cee seetaan tax ba ñu mere ko mer gu dul jeex waral tamit ba moom moomee di Baye Niass ca ba mu defee boobu lay sorti ci la daal di xamle rek ni Fatoumata Ndiaye lu bëri ci combat bi mu doon mënee defu ci woon dëgg defu ci woon fulla ndax nee na lépp daal ay nax sa xandang rek moo ko laloon nee na Fatoumata Ndiaye poche am rek la gisoon te lu duunal poche am rek moo ko taxoon di dox tax ba mu yor micro fu ne mu fay dem di wax nee na nag ba mu demee ba puus poche am diis nee na te li diisal poche bokk na ci rek ñaar ci ay oto ñu ko dox jox eh, terrain ak xaalis bu takk boo xam ne rek jot nañ ko koo jox waral tamit ba mu fi ne nii jóg pour tëj gémmiñam waaye moom Baye ñas mooy wax ba tey nee na rek ba mu jógee pour tëj li nga xam ne nii ba ñu tëjee gémmiñam moom mu jóg pour ànd ak président Macky Sall dafa rek daal di def ay ndaxte ñoom ñi nga xam ne ñoom la séqaloon boobule quoi boobule kuréel ñëwul ci ñoom benn yoon ba xamal leen rek ne day toxu dem ca président Macky Sall dafa mel ni ku leen di daw comme du kuy daw dëmm waral tamit ba mu rek génn ca foofee nga xam ne moom moo di ca seen bureau bañ taxawaloon waaye tamit fépp foo xam ne nii rek mafia eh, bi nga xam ne nii moom moo di Fouta Tampi dañu fa nekkoon moom dafa quitté moom xamalu tuñ ko dara ba tey Baye ñas mooy wax te Baye Niass xamle ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa APR ñoom ñoo xëcculu ki nga xam ne nii moom moo di Fatoumata Ndiaye ba am na ci ñenn ñu mu gisanteel ba ñu jox ko xaalis ñaari oto ak kër ba tax na tam ba mu waxee loolu ci la Faatumata Njaay daal defaat ab sortie ne rek moom day yóbbu ci yoon ku ñoñam boobu di Baye ñas ndaxte diffamation la def ci moom te it bëgg na mu fësal wala sax mu teewal bu baax a baax loolee muy wax ci moom ne am na nee na ko jëmmal te na ko wan carrément ne ko lii fii la ko teg waral tamit ba mu porté ko woon plainte ci semaine bii ñu génn ci bi wax ji amee plainte boobee nag ñoom ñaar ñu daal di tase nag ab confrontation fële ca dikk ngir rek jokkalante ay kàddu waaye tamit nag ku ci nekk la ngay tuumaal sa moroom wala sax la ngay wax ca sa moroom nga fas yéene ci indi ay firnde waral tamit ba ni ki tey jii ñoom ñaar tase nañ foofee ca dikk ci kanamu ñi nga xam ne ñoom ñoo di l'enquêteur yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo rek yeeyoo pour déglu leen ñoom ñaar ñu daal di saafonte bu baax a baax waaye tam ku ci nekk wax la nga xamal sa morom mu nekkoon nag débat bu tàng bu amoon ca foofee waral tamit ba ñi nga xam ne nii ñoom ñoom ñaar ñooñee dañ leen rek renvoyé maanaam ba li nga xam ne moom moo di jeudi ni ki rek jeudi ginnaaw suba ak jàmm ci la leen renvoyé ngir rek ñu daal di ñëw ñu rek dégluwaat leen ci mbir moomee nga xam ne dafa leen a lëkkale ñoom ñaar waral ba rek plainte jug ci waaye tam ab wuy si jug ci mu mel ni rek diggante comme niñ ko waxee waa Fuuta Tampi ñoom ci seen biir sa sax morso baa ngay saxaar bu baax a baax waral na tamit ba